jeune boo jox Jakarta mu ngi travail mhm. mais ce qu'il a là c'est pas un emploi loolu du emploi mhm. ngay tabax euh, pont Foundiougne bi am ay centaine de jeunes yu ñëw bokk ci chantier bi ñu ngi liggéey il travaille mais loolu du ay emploi moom lañ tuddee emploi précaire mhm. très bien emploi précaire loo xamante ni pour benn temps la et puis c'est fini donc nit ñi waxuñu loolu xam nga tey bu ñu toogee ba ñu ne Sénégal ay zone yu mel ne ay Podor ay maatam ñu ngi nekk euh, au bord de la famine Mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal véritablement problème daf fi am parce que ñooñu lan la ñu dendal fleuve Sénégal nga xamante ne ni tey ji nii mënoon leen a permettre ñu développer toutes sortes de cultures tey imaginel quarante six mille quarante trois milliards yi gouvernement bi mobilisé ne daf koy envoyé nit ay nit ci noonu noonu su doon tey jii nii investir nañ ko véritablement ci euh, fleuve Sénégal boobu. Mhm. mais côté boobu non seulement du doon ay travail précaire mais di nga jox nit ñi ay xëy yoo xamante ni mais c' est dans le long te dootuñu fa toog ba naan euh, nu mu turati la famille euh, mu ngi leen di yot. mais boo jëlee lu toll ni vingt cinq mille hectares nga jox ko benn tubaab boo xamante ni day jël jeune ya fa nekk leen di def ay ouvrier agricole. Mhm. kenn koo xamante ni moo war a yor kër nga koy fay weer soixante mille. mais yow da ngay favoriser véritablement la précarité. te loolu tey tey jii nii lañ lañ lañ xaarul ci état wu Sénégal. Mhm. man nee naa euh, bourse de sécurité familiale bañ mhm. koy yëkkati fi ñu ko copier. mooy euh, quelque part euh, Brésil. Mhm. te le président lu mu si jublu mooy quelque part am benn quota. électoral maanaam quota de sécurité hmm. électorale hmm. mu leer na ne yow ci population bi am nga deux cent cinquante mille yoo xamante ne nii personnes yoo xamante ni chaque weer yaa ngi leen di jox xaalis mu mel na yow da nga jàpp ne deux cent cinquante mille euh, personnes yooyu xaalis bi nga leen di jox boole na la ak ñoom de sorte que hmm. sa quota électoral la ñu nekk lu mun di xew yow la ñuy voté donc ñoom <laughs> xalaat yooyu lañ ciy am alors que euh, même les euh, régimes les plus socialistes tey jii nii li ñuy def Oustaz Assane mu ngi koy wax sànq nekkul ne yow état bi yaay jox. yi boo xamante ni potentialité yi kenn xamul nu mu toll <laughs> mais donc. li li mi ngi mi ngi menacé wu tëj. Excaf euh, mu ngi menacé wu mm-hmm. tëj. wari bi. nga xamante ne ni mhm. sénégalais comme moomoon kenn waxatu ko ak Kabirou Mbodj Serigne Boub il te dit que ne instant yi nii il fait face à toutes sortes de difficultés mhm. <laughs> baarataal kenn waxatu ko mhm. donc tout ça c' est yoo xamante ne ni dama jàpp ne tey bu doon état du Sénégal taxaw na tànk yi nga xamante ni moom la waroon a taxawee ñooñu lay dooleel parce que ñooñu bu ñu taxawee quelque chose de solide mën nañu jël des sénégalais yoo xamante ne ni bu nekkee ci état bi lañuy ñuy dépendre euh, pour am liggéey mais ñooñu mun nañ leen offrir ces opportunités la mm-hmm. mu am daaneel ci oustaz rek euh, mm-hmm. après ñu def benn tour table politique. Euh, Oustaz